complot bi claté bi am ñu lenn lu ñu mën a teg si table bi ñu ne man ma jox leen sama deret man Ousmane Sonko ñu yóbbu ko xaw ma fan daal di génn ne ah conclusion yi mooy lii may leen xanaa ngeen dem jëli deretu Bob Marley de sama deret man mii ilaa yow mi di du ngeen ci jot sama tuflit sax du ngeen ci jot waxuma laa sama deret parce que ñàkkuma ful la ba foofu

waaye bëgg nañu ci ni mu gën a gaawee ci ni mu gën a gaawee ñu dem ci procès ba ni mu gën a gaawee. man ay jamono may toog fii man ne leen loolu <laughs> je crois que Omar Faye dina ko déggaat encore man leen procès du am parce que dama jàpp ne bu <laughs> l'État n'est pas près à aller jusqu'au fond de de man li ma ci mën a wax mooy sama wax yu démb mooy wax yi tey. gaa yi amuñu dara ba dara booloo jeex amuñu amuñu amuñu amuñu vidéo amuñu audio amuñu sax cassette amuñu dara ba dara booloo jeex. xam nga ni da ngay fen day fen. defal sama bopp si su weesuwul ma yor lépp li nga xamante ni mu war a àtte sama téléphone. yàlla man dafa ma may. man du ma wax lu ma xamul. nee na oui boobu. su dina ma ah bon. je l'ai toujours dit. li gën dangereux nit ñi dañuy fen ba far gëm ba far gëm seeni <laughs> Info de dernière minute euh, sur euh, euh, l'affaire Ousmane Sonko Adissar. Oui, Suleiman, information RFM, l'affaire Ousmane Sonko Adissar est renvoyée devant les chambres criminelles le doyen des juges a envoyé aux avocats des différentes parties euh, un avis d'ordonnance de règlement euh, définitif au, Conseil. Ousmane Sonko est bien inculpé de viol et menaces euh, de mort, des faits prévus et punis selon toujours le document par les articles 320, 320 bis et suivants du Code pénal et la loi 2025 du 10 janvier 2020. Et donc, l'affaire Ousmane Sonko-Adissar va être jugée

Hmm. Ousmane taxaw na le ñooñu taxaw le boobu nga xam lépp dëgg la. vous faites tout le temps des harcèlements pourquoi. non mais ça c'est des exagérations ba pare que jàkkaar loolu mooy néeg bi la fameuse nek moy nek bi nga xamné fa lañu wax ni euh, moy le lieu présumé fa la yëf yi xewé salon bi comme ni ngeen di gisee bala nga dugg ci nek bi ben caméra de surveillance encore mu ngi pour woné ki nga xamné moy dugg mais comme ni ma leen ko waxé toujours kérok ci le 2 euh, février 2021 caméra bi branché wuñu ko woon li waral moy gannaaw coupure de courant lañu won woon branché woon nañu machine yi faté ko branché wat lolu mo taxone kérok branché wuñu caméra bobu te te kérok bi yëf yi di xew soxna si nga xam ne moom moom salon bi muy Ndeye Khady euh, Ndiaye moom nekkuloon ci kër gi boobu demoon na hôpital dem seeti li nga xam ne mooy doomam bu prématuré boobu euh, jëkkëram rek moom moo nekk ci kër gi. bu ko defee dañuy dugg dans la fameuse salle salle bi nga xam ne fa la ñu doon maase Ousmane Sonko mais fa la ñu doon maase. comme ni ngeen ko gisee ni ñu leen ko doon waxee bu ñu génnee ci biir euh, néeg bi li nga xam ne mooy bunt bi bu ñu ko delloo comme gis ngeen ko bunt bi du tëju xaw ma par ban extraordinaire la la ñu mën a dugg ci néeg bi euh, tëj ko ba mën fa mën a def loolu nga xam ne moom la ñuy tudd mais comme ni ma leen ko waxee kër gi dafa am benn xale bu ndaw xale boo xam ne ñetti at am te fu ne lay daw donc bu bunt bi waroon a tijjeeku ñu war fi mën a def dara xale boobu war na mën a daw à tout instant bu ñu ko xalaatee war na mën a jiixi jaaxa si xel yi mais beneen encore événement bu bu bu doy waar comme ni ma leen ko wone diggante fii ma taxaw ak buntu entrée principalu kër gi matul 5 mètres. bolé ci matul 2 mètres pour ñu entrer au salon ndax fièvre def am dom ju prématuré dem mhm. ci hôpital ba mhm. loolu du loolu loolu lu yalla dogal ni rek de mhm. ñom ñoo andi aji sar fexé ba day xadi génn génn salon bi parce que bu fa sonko ñewon fekk fa responsable salon bi la fa am du am fa am ñoo duggal aji sar ba nopi jëlé fa nday xadi bi fa nday xadi joggé demal nga laaj nday xadi ñaata massage la fa bayyi mais comme Sonko moom warul Adji Sarr warul Kumba warul Binet warul keneen moom day maase wu bu ñëwee man naa am. Mhm. maaseur yi. Mhm. ki bëgg mu maase ko pour mu comploter moom du ko maase. ñu fay leen ku ne trois cent pour débourser leen. loolu la dëgg laa ne ko est-ce que pour massage Ousmane Sonko yow yaa désigné Adji Sarr pour mu koy defal mu ne déedéet musuma wax ne Adji Sarr. yow yaay toppatoo sonko aji sar man mako bolé ak sonko pour mo koy maasi comprendre nga waa yow viol mom kan lañ koy def viol aji rabit sar aji rabit sar momu am jëkër ba tass né musuma def rapport sexuel ci li ma ngi leen di gërëm di leen sax Nous ne sommes plus au temps des révoltes de salon. Comme je l'ai dit, notre moment de vérité est arrivé, celui des véritables gladiateurs. Le plan est déjà dessiné. C'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui pour protéger notre projet. Yen, bu soobee yàlla kii di Antoine John, qui di Macky Sall kii di procureur ki di ya xam def defkatu ñaawteef fi lim juum bugguma lim ñep après ngeen jël ay policier mu len di wër wala ay gendarme dedet du len ci soyez mobilisés le combat s'annonce mortel le mot n'est pas de trop. nous on est prêts pour vous ñun paré nañu pour yéen doomu kharam yi. c'est le prix qu'il faut payer aujourd'hui pour protéger notre projet génn ko leen japp rek ci mburoog sow ñepp ben lañu ko leen japp ci mburoog sow wa Thiès tal leen kër sow allumer la maison de sow wa Thiès lay waxal këru sow na boy kër l'heure n'est pas au conciliabule elle n'est pas aux discussions numériques elle n'est pas aux discussions de salon l'heure est au combat euh jeune yi nga xam nak nag yéen yéen ngi génn di manifester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 maa ngeeg wér gu yaram gu mat sëkk kanseeruma ah ci ci ci lu ma yëgul jabetuma aw ma insuffisance rénale aw ma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah yàlla daf ma nattu ba may nekk gone ba fii ma toll nii ma ànd ak ay jàngoro yoo xam ne dafa laaj faju avec toi rien n'est jamais possible. Nous mel ni Corée du Sud Qui est le xam de mu la région de Durbel sax Qui superficie. tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. blabla I have a dream. soyez mobilisés. le combat s'annonce mortel le mot n'est pas de trop. Ami Ousmane Sonko toutes réunies ñoom ñu ngi nii di dund mbégte bi ak doomam yi ngeen di seen euh, ci vitre euh, vi bet euh, baie vitrée plutôt ñoom tamit ñu ngi kontaan loolu parce que ku ñàkk fulla ci sa bopp surtout am ndaw nga xam ne société bi soxla na la mais pas ci xeex xuloo soxna la pour la construction de la nation say waajur soxla nañ la jur nañ la. yar la toppatoo la ba nga toll ni nga toll ñu yaakaar nga war leen mën a dimbali yow amoo benn fulla sa bopp lu dul benn politicien boo xam ne ci jamono ji mu lay yónni pour nga xeexal ko moom doomam ma nga Canada wala États-Unis tëdd nga dem di rey sa bopp ci loolu ñooñu lañu war a waxal tey man aw ma je n'ai rien à dire aux politiciens politiciens yi sikk nañu ba noppi munoo dara si ñoom mais jeunes yi leen di topp au nom de quoi et di génne ay jaas di tëb di dal. ci loo xam ne politique du loolu politique débat d'idée la ku nekk na ñëw ak programme am ku nekk na ñëw ne askan wi lii mooy sama mbëbët ci askan wi ku nekk toog déglu parce que yàlla may na ñëpp xel seet di la gënal bësu vote nga dem vote dem ñibbi loolu lan la ci ay xeex ak kii j'ai mon épouse qui dépose mon fils à l'école attendez j'ai mon épouse

با ورنا ديم دفي سما سياسة مساج من ما با خام يا استغفر الله موسو في ام واخ دغ يالا نيو لاج داك كي امنا كوا كاتشاكا ابا داي وخ نان غاد نغا نك كامل اه وات دا نو تي نتا ام ام لي ليبر اه مي في موني بي لان لا موني بي امنا بو 2000 امنا بو 2000 2500 1000 فرانك لي بو 1000 فرانك بي غاي غاي غاي غاي موي تولوك موم اه ايه بول ما بون دينغ لو ماي خيبه jox ma ci catégorie yu mag ci wuraan jàng contemporain yi laa bëgg nga jox ma jox ma ci yu dix mille yi wala cinq mille. loo may xeex laa ñeme. mais Padre sa physique nii nii dafa. Eh, eh, da ngeen jaay may jënd jox ma ko di mi mbaa bu oh. cinq mille. Ah. alors léegi xaaral mooy ma fi waaye li ma yëg sama yaram maa ko xam damaa gëj a lëkkaloo li ma yëg sama yaram yi ma ko mukk ma ak ñoom rek ma defanteeg ñoom ba waaw damay nga ñu mun nga ñu eh, bëgg ñaan président de la république <laughs> kër yu mel nii dañ leen di tëj <laughs> li ma yëg ci sama yaram ba xam ni war naa dem defi sama séance de massage man maa ko xam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 Comment se passent les contrats pétroliers et gaziers Les contrats pétroliers et gaziers sont un accord qui est signé entre l'État d'un côté et une équipe qu'on appelle un contractant euh, d'autre part constituée par une compagnie multinationale et notre société nationale Petrocel. Dans le cadre de cet accord, il est convenu d'une phase de recherche et d'une phase éventuelle de partage de production. C'est pour ça que le contrat euh, pétrolier en vigueur au Sénégal s'appelle un contrat de recherche et de partage de production. Donc en phase de recherche, dans l'équipe, Petrosen a une part de 10%, mais n'effectue aucune dépense. C'est la compagnie qui effectue 100% de dépenses. Et en cas de découverte, euh, l'équipe et l'État partagent la future production, donc sur la base de critères comme le niveau de production journalier. Tout cela pour dire que euh, au final, la part globale de l'État euh, correspond à la part de Petrosen, aux impôts et taxes payés par la filiale locale de la compagnie et à la part propre de l'État. In fine, euh, l'État se retrouve plutôt bien loti dans ses contrats. Et dans le cadre de ce partage, lorsque l'on cumule la part de l'État, la part de Petrosen qui appartient à l'État et les impôts et taxes qui sont récupérés par l'État, l'État du Sénégal est majoritaire dans les contrats.

te nekk contrôle judiciaire nañ ko bàyyi mu dem Paris men man may maire bo xamni ne mënumaa génn tey réew mi saa yu ma bëggee tukki man sama passeport man ko yor sama passeport mi ngi ni ah kon ñom ban lañ yor. Euh, euh, la la problème sama passeport mi ngi ni diplomatique. disant muy taw mu génne drapeau par hasard c'est ça garde rapproché ça veut dire que comme il est euh, ak mom ni mu calculateur ça veut dire que c'est son drapeau c'est son parapluie voilà incroyable euh, Ça a été Ça a été je suis je Je vous tu veux parapluie LGBT parapluie couleur LGBT tenu par sa garde rapprochée

problème mu nit la rek. ak niteem. Mm-hmm. fo catégorie boo dem nag muy ci xeet muy ci genre yi. wala ci diggante góor ak jigéen. muy ci euh, ñu bokk kuréel ci diine. Mm-hmm. muy ñu bokk réew. Mm-hmm. foo dem dina am ñu baax ñu tane ñu bon. loolu la yàlla bindee mbir jigéen ñi gënuñoo bon góor ñi. xeetu saay-saay bu ne ma nga ca bu leen jàpp rek ni saay-saay yu yi la saay-saay bu mbubboo diine li ngi ci dégg ngeen barki démb kenn kuy wooye wooye boppam kilifa diine nga xam ne peut-être ñi fi gën a duñu xam histoire waaye ma fàttali leen ni moo fi créé woon parti bu tudd Hizbullah te day jël nguur gi par force imposé diine ba say woor tëj ko kaso mooy koo xam ne su demee Iran ne leen siit la mbëkk leen ñu jox ko ay milliards mu daw bu demee Arabie Saoudite ne leen wahhabite la mbëkk leen ay milliards ñu jox ko xaalis mu daw bu demee ci Kadhafi ne ko yow sëtu yonent nga ban sëtu yonent la mbëkk fa ay milliards daal di ñëw toog mooy koo xam ne lu musa nekk complot ci Afrique ak lu musa nekk complot ci Sénégal loxoom a nga ca ci livre bi Abdou Diouf bind. mu ngi koy nettali bu mu demee Niger di fa def yëfu saay-saay ba ñu jàpp ko fa. torture nañ ko fa lakk nañ fa ay affaire am. tey benn échantillon rek ci mbir mi ñooñu tey ngeen dégg ñor seen làmmiñ di mbir yi parce que dañoo jortu ni seeni intérêt. barki démboo Ndiaye rek lañ fa andil ay kayitam. fii Lac Rose rek 2011 nax na fi Ablaye ba mu jox ko 165 million 650 mille mètres fi nekk ñëpp mënoon nañ ci am kër. teguwul ci dara lu dul njuuj njaaj ak mag yi parce que du ci mérite. te benn bu leen xas kenn. bu leen xas kenn. bu leen doyadal kenn. bu leen kenn. bu leen toroxal kenn. bu leen kenn. bu leen jànn kenn. bu leen jànn kenn. wut leen li ngeen di wut. wut leen li ngeen di wut. jàpp ci. jàpp ci dem. dem waaw moo gën moo gën xaste xaste baaxul baaxul weer nit nee na weer nit xotti suturaam xotti suturaam baaxul baaxul waaw yooyu yëpp yooyu bari na Sénégal léegi nag waaye nag loolu bari na Sénégal léegi te yàllaa ngi wax ci boppam te yàllaa ngi wax ci boppam inna allaha inna allaha hayyiyun hayyiyun waaw fii rek leen yàlla seen borom subhanahu wa taala yàlla moom aji kersa wala moom yàlla ku bëri kersa la waaye si tiirum yàlla ku bëri sutura lay tax yàlla du weer kenn yàlla du weer kenn ku weeru rek ku weeru rek yaa weer sa bopp yaa sa bopp moo tax bu ñu bëggee bañ baña weeru moo tax bu ñu bañee weeru bu ñu weer kenn bu ñu kenn bu ñu xas kenn bu ñu xas kenn nañu wut li ñu bëgg nag nañu wut li ñu bëgg rek bu ci bu kenn dox suñu digganteeg bu kenn dox suñu digganteeg nag suñu objectif waaw waaw waaye nag waaye nag ñu def ko ci sutura ñu def ko ci sutura ormalante ormalante waaw dañu waxoon ni sénégal mooy pays de la dañoo wax ni sénégal bu njëkk mu doon pays de la teranga léegi nag waaye léegi nag mooy pays de la <laughs> réew mi tàkk ba noppi si kilifa di nii nay doog a intervenir parce que am na loo xam ne suñ ko taxee woon peut-être bu njëkk ba sax egsi fii man la sëriñ asiru tey nag ma bëgg indi ay leeral ci kàddu yi nga xam ne Ousmane sonk indi na ko euh, mu mel na def cee euh, tuumaal ak ñàkk giseem ak xalifa yi ñi nga xam ne ñooy bëkk néeg yi te wax jooju nag nekk wax yu metti njabootuk sëñ Tuubaa ndax bëkk néeg yooyu muy wax man na lu leen xaw a suufeel ñooy jege ñaar sëñ bi bu sëñ bi ubbee ñoom lay njëkk gis buy tëdd ñoom lay mujjee gis mm. kon ñooñ duñ n'importe qui ci kër sëriñ si te defe naa kenn mënu leen a jënd ñaati yoon la ñëw ñu dalal ko Touba. te saa yu ñëw bëkk neeg yooyu muy wax ñooñu lay woo. ñu dugal ko sëñ bi moom amut sëñ sëñ Mountakha moom xàmmiwut Macky Sall xàmmiwut Ousmane Sonko. képp ku fa ñëw dina la dal. moo xam jullit nga moo xam chrétien nga moo xam lu mën di doon. kon ñooñu muy suufeel di wax ne dañ leen a jënd. wax ju ñaawa ñaawa ñaaw ñaaw la te du wax ju ñu rafetlu ndax seetlu naa man Daaru Xuloos gii ma dëkk. saa yu fay ñëw bëkk néeg yooyu ñoo koy dalal ñoo koy toppatoo ñoo koy indi ci néeg yi muy fanaan ak yépp te pourtant am na ñu ne saa yu ñëwee da naan dafa bëgg dalal geneen kër ñu ne ko doo doo fi fanaan mu ñëw foofu victimisé wu bañ ubbil ko néeg yi kon kër Sëñ Tuubaa fépp benn la Daaru Xudoos sa kër fépp benn kon loolu daal ñu ngi koy naqarlu ah, Daaru Xudoos sag màggal fa lay fanaan kon tey bu wëlbatikoo ñëw ne amut accès ci yenn xalif yi ci yenn sëriñ ci man wax joju wax ju ma jaaxal la te wax ju ñaaw la gis nañ benen affaire aussi mu attaquer président Idriss Seck Idriss Seck comme nim ko waxee woon ci benn vidéo rek nit ku xam état la nit ku man tontu la nit ku xam limi tontu la mais do ko dégg mukk muy tontonte ak nit ndax ku am kilifa la te Sénégal def na boko ko jité faaw nga kilifa yi nga jox leen cër te wax Ousmane Sonko ci dem ku ko dégg xam na joxut benn cër kilifa diiné yi daanaka daal dafa bëgg a wax ak peuple bi léegi euh, tëpp kilifa diina yi ni ma dégg ay waxam te loolu mënta nekk ndax réew mi kilifteef moo koy doxal Idriss Seck bi élection yi jàll sëñ Mountakha daf ko woo waxtaan ak moom ci dal ci réew mi ci ci lool la nekk ba léegi. kon tey bu ñëwee di ko attaqué di yeewaat fitna Idriss Seck du ko tontu ba mukk ndax om d'état la li li gënoon rafet man bi ma déggee ñu ne Ousmane Sonko day wax damaa jàppoon na ci weeru koor wi ñu nekk. weeru njéggalu la weeru baalante àq la damaa jàppoon ne sax day woo woote ngir baalu àq Sénégal yi ndax coono yi nga xam ne daj nañ ko ci euh, moment yi nga xam ne moom lañ ko jiiñee affaire massage ba ay fukki nit ak ñett faatu ci li gënoon a rafet mooy mu baalu àq njaboot googu nga xam ne faatu nañ ci baalu àq Sénégal yi nga xam ne yàq nañ ci seen ay liggéey baalu ci àq ñi nga xam ne perte nañ ci seen ay emploi waaye loolu lépp def ko di woote waat ne bakkanam la ko jaral ak yooyu defe naa Sénégalais nag nañ yeewu nañ xam ne kii nitu fitna la nit la koo xamante ni fitna rek a ñor kon weer wi dafa waroon baalu ak Sénégalais yépp ci fitna ji mu teg. yoo xamante ne mosuñ koo dund bañ dalee politique ba léegi. kàddu yooyu daal laa doon naa ko. waaw léegi léegi lu tax Ousmane Sonko wax ne dafa am problème am accès ci kër euh, ci kër kilifa diine yi. amu ci benn euh, euh, loolu lu muy créer la rek xam nga dafa bëgg a victimiser wu ci côté yépp wane ne eh, kilifa diine yi mënu fa am accès ndax dañoo neexal ay nit te loolu wallaahi alxasim amul kenn ku ñu neexal kër mu tax na wax ku leen neexal ñooñu loolu muy def noonu nag man ci laa gën a gëmee sax ne moom lépp manipulation la ndax bu attaqué proche xalif général des Mourides wala xalif général des Tidiane wala kenn euh, mu attaqué leen directement man loolu lu ma jaaxal la te gis naa saa yu fay ñëw ñoo koy accueillir ñoo koy dalal Daaru su ñëwee bëkk néeg ñoo koy accueillir ñoo koy dalal kon tay bu ñëwé di leen attaqué def naa day jéem a wu ci peuple bi ngir war na mom mu amut fenn accès té def naa loolu du jall mm-hmm. waaw loolu di dinañ ci jox den ci wax té di dinañ léral kilifa diiné tamit position bi nga xamné Ousmane Sonko amna ko ci ñom lépp dinañ leen ko léral inshallah allah. bawol info point net di jox ay xibaar yu gaaw té woor ay journaliste yu xarañ té mën seen liggéey bawol info le portail du Bawol sur le web. naka la parti politique sénégalais di amee xaalis foog ngeen ni euh, nguur gi euh, parti au pouvoir bi xaalis bi ñu pasar pasare ni fan la jóge il faut ne ay cotisation la jóge parti foofu soo fi fixé cotisation 10 000 sax nit ñi war la gannaaw liir di gis ay post yu gars yi di def moo xam ci réseau sociaux bi Facebook moo xam YouTube dafa mel nit ñi parfois dañuy inciter nit ñi génn leen ngeen dem rayante te loolu c'est pas normal waaw dañu am ful ndax ki naan laan génnal nga reyante doomam newu fi mhm. ki naan laan génnal nga reyante damay bëgg moom muy jiitu bu reyante amee nit ñi topp seen ginnaaw waaye nag jeunesse dañu am fulla bu ko mhm. leen la génnal nga reyante mhm. boo génnee gisoo ko nga delluwaat sa kër nga delluwaat waaw mooy li am solo defe naa ne loolu ñu ko xamee ni ko Zeyna waxee ni ñu ñëpp ñu comprendre ko noonu parce que tey defe naa ne euh, coow lu mu bëri bëri bëri waxtaan moo koy moo ko war a jiitu coow xëy rek am il waxtaan am donc bu ñu waxtaanee ci biir waxtaan bu ñu ko déggoowee la réforme constitutionnelle qui a été introduite par le référendum de 2016 n'a pas encore tranché la question du champ d'application. Euh, nous avons saisi le gouvernement d'une question écrite en tant que député pour savoir si l'article 27 était applicable au mandat en cours ou pas. Et la réponse du gouvernement, par le biais de son ministre de la justice, c'est qu'il ne revient pas au gouvernement d'interpréter la Constitution. Et donc, rien n'empêcherait le président Macky Sall, s'il parvenait à décrocher ce second mandat, de pouvoir briguer un troisième mandat en 2024 en considérant que l'article 27 n'était pas applicable à son premier mandat puisqu'il ne pouvait pas rétroagir. La constitution du Sénégal, à l'heure où je parle, elle parle de Nyari Mandat ou la constitution du Sénégal ne parle pas de mandat de Durom Donc le mandat de Macky Sall 2012 2019 constitution du Sénégal de quoi considérer. Non non non non non, De quoi considérer. Tu parles français, tu le comprends, je parle français, je le comprends. La constitution du Sénégal dit que grave hein. La constitution du Sénégal dit que tout Sénégalais qui devient président du Sénégal a droit à deux mandats de 5 ans. Macky Sall le mandat de 5 ans. Donc Macky Sall, ces deux mandats de 5 ans, selon la constitution du Sénégal, c'est le mandat 2019-2024. 2024-2029. Voici les deux mandats que Macky Sall peut briguer selon la constitution du Sénégal. tey dinaa la jox benn la confiance. confidence. Mm-hmm. bu ñuy Wade ci troisième mandat bi xam nga ñun nag euh, xam nga ñun politiciens des fois dafa am ñu bindé on savait qu'Abdoulaye avait droit à un troisième mandat. Il ne faut pas se laisser divertir par ceux qui parlent ceux qui parlent doivent parler c'est leur rôle c'est normal qu'ils parlent qu'ils critiquent qu'ils inventent ils veulent discréditer notre action pour que les populations se détournent de nous et que finalement nous, avons changé au top. c'est normal loolu loolu lañ bëgg dañu nañu am fulla bu toll nag li ñu yor téeku liggéey ko askan bi di ko gis kenn du ko xëpp suuf moom lañuy fal dara jaru fi toolu bari Sénégal mag kese ñaari yaa ngi waxtaan de leen ñoom bëgg topp islam eh, ak lu tax mu dem fa nga laaj eh, ndax dafa ne dafa feebar eh, mu wone ab kayitu ordonnance ni dañ ko digal kinésithérapie charia lum ci wax mooy dafa xaraam ci bépp fan na ndax euh, ku ku dëkk ci réew mi am culture tuuti xam nga ni salon de massage boobu du salon de massage kinésithérapie waaye ay caay-caay kese moo fa nekk ay xale yu jigéen yu dem ubbi seen salon amuñu benn diplôme kinési euh, seen publicité yi nga xam ne ñu bëri man ci taalibe yi ak euh, parce que ñun ay nitu diine lañu dañuy gëstu tamit ndax du ñu tëb rek wax lu ñuy publicité seen salon mooy ñëwal summeeku ba set ñu toppatoo la ba ba nga am mbégte wax yu ñaaw yooyu xal képp ku ko publicité ci dëkku diine dëkku charia dañ la war a jàppe ci bés boobu tëj la kaso duma la juróom-ñaar fukki yar yu métti yar la yar yu métti loolu mooy atte bi ci charia ki fa dem ak ki koy def yépp lañu war a jàpp duma leen duma yu métti bu dee dafa ne am na ustaas bu ko ko digal yaakaar naa ustaas boobu bu dee dafay ànd ak moom ustaas bi war na di wax dëgg oustaz ba juum na ba ci kanamu yàlla ndax xawma ban école la jàngee ci ban idéologie la ko teg waaye teguwut ci mazahibul arba su ñu waxee mazahibul arba mooy ñeenti école yu l'islam sukkandiku lu dut ñeenti école yooyu koo fi tudd ci école rek l'islam reconnaître ko sukkandiku diine yépp Afrique Asie Amérique ci continent yépp weesuwut ñeenti école yu mag yooyu mooy imam Malik imam Hanbal imam Shafii ak imam Hanafi ridwanullahi alayhim ajmain te lii buñ ko waxee dafa nekk loo xam ne ala ittifaqul ulama wal jamhur bépp borom xam-xam bu musa wàcc ci kaw suuf ci diine accepté nga ñeent ñi gannaaw biñ feeñee ni kenn waratul sukkandiku du dul ci ñeenti école yi moom la alamu islami bi yépp nangu keneen ku fi ñëw nag bees la te defagu fi ñaar ñeenti téeméeri at te yooyu kenn du ci sukkandiku imam bobu ko digal lolou imam bi jumlo Nako be ci kanamu yalla imam bi la ci mom la sukkandiku te momit culture générale am ci suñu gis-gis yakaron naa waru ko may muy gu Il est modeste, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est efficace. Et c'est peut-être cela le plus important.